Le métier, il sait pas où. Le métier, il sait pas. Ay ca Forza. wax wax ma Pam Ngom mbokk ndey ko jur. ndeysaan wax ma Pam Ngom nangul wax mbokk ndey naa ñëw mbokk ndey bàyyi ma ànd ak Sadio Ndiaye ma ma mu taaram ndeysaan ñu koy solo magam bi nga xam ne ci lu may Pam Ngom ndeysaan oh lamb dafa doy waar ndeysaan ñu noonu am na seen ngi noonu mbokk internet Saloum TV ndeysaan na ma seen ak noonu ndeysaan xool ci suuf xool suuf ndeysaan li booba sa xel dafay dem ci séeréer une ci sànn ndeysaan ndeysaan na ma seen daa mel ne ko yàqam ci combat xale yaa ngi noonu taxaw Mohamed Mohamed a ngi noonu Mohamed ama seen a noonu ndeysaan ama seen a ngi noonu dox ndeysaan xoolal Marley xoolal Marley ndeysaan Marley mi ngi koy ñaanal ndeysaan noonu ndeysaan ama seen noonu ndeysaan mi ngi koy téye mi ngi koy noonu delluwaat Mouhamed Eumeu Sène a ngi noonu ndeysaan ñu noonu di daw Eumeu Sène a ngi daw Eumeu Sène a ngi daw ndeysaan ndeysaan am jël Fadel pare na bëgg na gis na gis tey daal làmb la joo xam ne li ma la ci wax mooy làmb ji yàlla jàpp làmb doon waaye làmb ji doon lu tax nga ñu soog ba ci kaw nga xam ne ci bëre lay jeex ndax ñoom ñaar dañoo xiifante dama seen daa xiif Tapha Tine Tapha Tine daa xiif Eumeu na wax ni xeex biñ ci xalaat du ci am bëre bi lay jeexee ndax ñaari bëre kan la. mais pare est-ce ne seen nañ ko def ci wàllu xeex. seen lépp ci war na bu ne xam ne xeex kan la waaye Tapha Tine xeex bi muy xeex di jëpp ci bëri pour mu tuusale faaw mu kor la Eumeu Sène nekk dëgër boo xam ne neexut a kor pour mu jëlee Tapha Tine mën faa am dara foo mu jël kuréel ndax mu jëlee kuréel Tapha Tine dina mën a def dara bu la mayee lambi wax la. te le maire kat nag. yaa ngi am jaawle yàlla na sa jàmm. yaa ma sama keroog bu ñu ko si doon. yow sama xarit nga ñu ñoo bokk béy ñoo bokk bàyyi. seen asamaan te te boo xam te. yow sàcc sama téléphone moo tax ma doon xeex. xam naa nee na boo xeexati. daa feeñ na. daa am ñu jàpp am ñuy raas teel. boo caaree daal boo yaa ko doo ragal nag. daal ñu jàpp am ñuy raas teel. mais gis naa ni ko ëpp lay waaj ba ah. koo rey. Ah. mais nag dimbali ko mi ngi noonu ndeysaan ndeysaan doog nga de Saint-Louis TV mi ngi noonu Eumeu Sène mooy doxante noonu a ngi bi yor Mouhamed Mouhamed yaa ngi mel ni kuy ñëw laa <laughs> am ndeysaan ama seen a ngi noonu ndeysaan ama seen a ngi noonu ndeysaan xool nu ma takk si zone bi lii damay fàttali manga ndeysaan lii daf may fàttali Yékini ndeysaan lii daf may fàttali Dame Sugar ndeysaan lii daf may fàttali man ma Alboury a ngi nii Alboury eh Alboury ndeysaan xool Alboury xool Alboury xool Alboury eh. ah! eh, amara ndeysaan waa mbiri ana looy ni ndeysaan boobu ca am looy ni albure ngi noonu ndeysaan boobu caw xam ba naanay waaw waaw ba naanay pour kan la ndeysaan waa waa albure waa albure pambi albure pambi xaalis bi laa si bokkul si albure

ak léegi noonu tey maa leen di alimenté ak léegi noonu ndeysaan ak ren rek ba léeg-léeg de xaw ma daan a yëg ndeysaan ma koy séeréer béykat yi ndeysaan am lépp ca kaw la. albuda yi noonu wax day saraxe suukar ndeysaan suukar daa neex bu ma jege sorom bu ma sore jarom kii mbay aw buri bu leen gën a ñebe bu leen tukkiri mbergaan mbergaan sore sore njaay jaay njaay ndeysaan albuda yi noonu xoolal xoolal bu di sarax sama ñoom yaay ndi ko cun di sarax ñoom ki ne laam nee na ñu Thank you. waaw saa bi maa ngi baax. MPST la koy wax. tey dama yeewu rek am fraîcheur. am fraîcheur am fraîcheur. tey lan la. waaw mais tey. waaw loo koy def tey loo koy def. waaw muus. muus noos. muus noos. muus muus. waaw muus muus. muus waaw. muus. noos ñibbi noos. ñibbi noos. waaw loolu dëkk tey. tey daanaka maanaam faaru gileem rek. ah faaru gileem teg ci sama ndox. dëgg la. alhamdulilah maa ngi dégg naa ñëpp ngay alimenté. maa ngi koy bi maa leen alimenté. loolu la alimenté ma supporter ay fruits. Uh-huh. voilà ay dugub. Uh-huh. voilà y' a beaucoup de. te supporter rek dama ne la ñu xëy. ku ci nekk boo ñëwee ngay naan sa butéel mu tàgg. te kii dañ koy tortillé saak bi ràññi ko. jël kii bi dugg ko. incha allah. man yaay sama xarit. dégg naa ko. ak Abdou ak Abdou. waa dégg nga nii. waaw. ndeysaan Alboury ngi noonu ne tey maa leen di nee tey nañu ne ay mutaade ay ay ñun ñëpp lay alimenté ndeysaan noonu. ndeysaan waa Vaara ngi noonu waa Vaara ngi sama doomu ndey Babacar anamu waa équipe Vaara ngi noonu ndeysaan Babacar suñu xarit ndeysaan xoolal Mouhamed Mouhamed borom turam bi <laughs> waa Sani bi ñoo seere Vaar bi loolu lañ ko wax non xoolal Vaar bi teewu fi xoolal Vaar bi waa Sani bi ñoo ñoo téye bi waa Sani bi ñoo téye Vaar Babacar a ngi ne Mouhamed loolu mi ngi si digg bi ay waay Saliou it xale yi mën nañu ne Tapha Tine loo xam moom Tapha Tine ngi noonu am na lu muy joxoon waa Ama Sène ñu ngi si biir géew gi ñoom sax ñu ngi joxoñante ñu ngi joxoñante ndeysaan xool Tapha Tine ngi noonu jàkkaarloo ñoom xoolal waa ji li joxoñ am na Tapha Tine ma ngi koy seet ndox parce que xoolal waa ji ma ngay fayu ma ngay fayu eh ma ngay wiccax xool mi wiccax kii li wiccax walla lii kenn walla ay waay lamb ndeysaan ndeysaan xoolal waa ji xoolal waa ji ma ngay ma ngay wiccax ma ngay wiccax lii avant combat bi la xoolal waa ji xoolal waa ji li mu sam si biteel ma ngay sam si biteel tey doo koy ji jeexee li yëpp dangeen koy am léegi-léegi ndeysaan bu kenn di wane dañuy wane ndeysaan Babacar a ngi noonu waa VAR waa a noonu Babacar ma ngay laqatu bu oh, laqatu xoolal waa ji ndeysaan mi ngi noonu mi ngi noonu ndeysaan xoolal xoolal waa ji xoolal li muy joxañ ma ngay joxañ joxañ làmb ndeysaan Tapha Tine dellu na suñu gaayam ndeysaan Tapha Tine ngi noonu Mohamed Mohamed Tapha Tine ngi noonu waa ji da koy joxañ ma koy joxañaat mi ngi si biir biir suñu gaay ki nga xamante ni mooy Tapha ak diggante bi nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène ndeysaan xale yi ndam a ñu ñor di ñaan yàlla ànd ak ñun loolu ñaan yàlla. dafa mel ni seen bët ci waa des arènes bi waaw loolu la ñaan yàlla yal na yàlla ànd daal waaw yal na yàlla ànd ak daal. yàggatul day mujjee. mais xam nga le premier changement dina ni waa Bawal foofu lañ teg seen bët. waaw foofu lañ ko teg droit bi a dem ba Bawol jàppale ci kattanu yàlla ñuy wax naan Bawol la ngemboo. dana yàlla ànd ak ñun daal. ndeysaan wax ci benn la yàlla yàlla ànd ak ñun ndeysaan mi ngi noonu Tapha Tine ngi ndeysaan mi ngi noonu bool bool baa ngi noonu kii bu ci bool jóg ndeysaan tabaati na ngi noonu nekk si tumukaayam comme ni ngeen ko gisee ni muy xëppoo ay galaajam mokkante nañu sànni bi ci biir dara du leen dëj tey ci làmb ji mi ngi wuy téléphone oh xel may dal ma lay wuy téléphone ka lay waxal ndax sëriñ bi lay waxal ndeysaan xool leket bi xool leket bi Mouhamed xool leket bi ndeysaan xool tabaat yi ma ngay naan def ma ngay buuf bu ma ñetti buuf ndeysaan ma ngay wuy téléphone ndeysaan ndeysaan ñu koy paas ñu koy paas ñu ne def ko waaye xoolal waa ji ndeysaan tabaat yi nga song noonu ay jàllaatam ndeysaan ma seen tabaat yi ndaw laa mun wee ci kanam tuuti yéen ci koy waay ndeysaan mbokkante rek Saliou TV ndeysaan mi ngi noonu sama gàllaaj moom Tapha Tine ndeysaan mbokk ndey ko jur rek ni moo koy sotti gàllaaj noonu rek ni moo koy sotti gàllaaj noonu ndeysaan ndeysaan ba pare ndeysaan Tapha Tine ngi noonu ngeen ngay gis cumukaayam Tapha Tine noonu cumukaayam mi noonu jël li nga xamante ne moom selu rabal ndeysaan Tapha Tine mi ngi noonu mi xooj li nga xamante ne moom mooy garab bi ndeysaan nañ koy sël moom ci lamb lépp ay tegtal la loolu ci lañ wax rek doo ko bàyyi koy def ndax bu ñu daanee buñ la jaaree sëriñ bi day am wala yi ndeysaan mbokk internet Saloum TV ndax ma ngi noonu ay tegtal la ndeysaan wàcc na ngi bàkk noonu ndeysaan ndeysaan ndeysaan mi ngi noonu di wax a dàq wàcc noonu waaw gars yi ñu xale nu nuyu quoi bilaay te xam ne ni ñu taxawoo dafa ñu tey rafet na trop bilaay sant leen ci bu baax a baax a baax a baax dafa dina amul gudul moom bilaay rawaa bi rek lañ ko yéene amul leneen luñ ko yéene fi mu toll yàlla ko yàlla jàppale yàlla na yàlla ànd ak moom tey quoi yàlla na yàlla ànd ak moom tey bëgg nañ lool trop jërëjëf waay doomu yaay kontaan naa ci yow Thank you. Mohamed Tapha Tine ngi noonu dox Mohamed Tapha Tine ngi noonu dox ñu wan ginnaaw mi ngi noonu Eumeu Sène moo génn Tapha Tine moo dugg ndeysaan waaye ku nekk nag li nga CNG jox loolu ngay def Eumeu Sène moo génn léegi léegi Tapha Tine dugg daa dem day waaj a dugg seen Eumeu Sène ci biir géej bi mu baax ba mu génn mu daal di dugg ndeysaan lamba ngi noonu. ndeysaan laa ma ngi noonu Tapha Tine ngi noonu dugg si biir géew bi ànd ak ay naataangoom ay ku ma doon waxal léegi mooy bëre de. ndeysaan mooy waaj a moom daanaka. Tapha Tine ngi noonu sottee ko galaaj Mohamed Tapha Tine ngi noonu Mohamed di sottee ko galaaj Mohamed Tapha Tine ngi noonu di sottee ko galaaj si biir géew Tapha Tine ngi noonu di sottee ko galaaj ndeysaan xoolal galaaj ndeysaan Tapha Tine ngi noonu mi ngi laaj ndox bi le Bawol ndeysaan le géant Bawol ndeysaan mi ngi noonu ndeysaan bay si ngi noonu mooy mag mooy rek ci mbokk ngay xëy ci xolo glace ay waay glace glace baa du manqué suba ci lënd bi Mohamed Mohamed suba baa du baa du baa du baa du yëngu problème glace Ouzin seddaay dugg si na instant kenn solootul glace saan wax nga dëgg rawatina waa parcelle waa vingt six waaw ndeysaan mi noonu mi noonu ndeysaan Babacar Sow doomu ndey <laughs> moom mooy filmé sama xarit la waa VAR bañ na